Allô Star Allô Sport Allô Culture Allô Santé Suivez Sénégal Allô Sénégal Allô vos besoins asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki internet mbokki youtubeur ñu ngi leen dalaat sur ma Sénégal te ñëwaata leen seen décortiquage série bi nga xam ne mooy famille sénégalaise mbokk yi yéen ñi ñu siifu di ñu topp képp koo xamante ne am nga sa commentaire nga bëgg koo def par vidéo wala par audio envoyé ko suñu numéro whatsapp boobu di laase si suufu écran bi mbokk yi bu ko defee ñëwaata leen seen décortiquage mbokk yi lu ñëpp doon laam-laamee te Olof Njaay neen lu njëkk si xol tësa mel ni marlo ànd naag mer ànd naak soxar ak bon xat mais xolam bi mariet moo ci nekk mais mbokk yi buñ xoolaatee ba ci biir bande annonce bi bu xoolaatee bu baax kon Marlo dafa am doom ak benn femme bu naan Ami Diop te loolu ñu bari xamaguñu ko ci kaay soxnaam xamaguñu ko loolu olof njaay naan neex sedd rey dafa am si nit ñi mais Marlo moom moom la tiggi boo ko gisee jàppal ba mu la romb mbokk yi lan moo waral yenn yi wala yenn jëf yi nga koy def nit walla nga koy def sa moroomu doomu aadama lan moo waral yenn jëf yu ñaaw lan moo waral yenn jëf yu soxor kiñaan yi buñ xoolee ci diggante moo soxna Babator Marlo sëñu taxaw naan Barbator si yax bu rëy laa juddoo si famille bu rëy laa juddoo ndax mosuma xam si lii si yow Marlo loolu dafa fees ndax boo xamee si yax bu rëy nga jóge juddoo si yax bu rëy dangay toog fa mais boo jëlee sa bopp jàpp sa bopp ne yow yaa nànt bi yow yaa ponkal mi yaa seex mi ba tax nga jàpp ñële ay poofu say rak say mbokk jàpp ay poofu bañ leen àdduna àllaaxira jàppal ni bisa ngi ñëw sibbis yi te boobaa doo si man dara te loolu nag moo li bëgg a dal kon mbokk yi ngallwaay bu ñu def nani rafetal ndax lu man di def ëllëg dina ndajeek moom si te bisan si yi di nga dajeeg sa boobaa day fekk réccu jëf wees nga woo say mbokk ñoom ñu ten la gën la ñëw taxawu la soutenir la mais képp ku bedd sa famille ndax alal wala leneen ëllëg di nga ko réccu te boobaa dina métti lool kon mbokk yi ngalawaay na ni rafetal te xam ni xaalis du dara xaalis luy jaar jàll la dañuy dem bàyyi ko fi keneen jël yor kon ngalawaay na ni rafetal diggante yi baax a baax jërë jëf di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen épisode. trente et